asubillahi mina seytaan rajim bisimillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokki alxaqu saabit ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen baalu àq di leen baalu àq bu baax nag ñu fas yéene ñëw ak ci seen émission bu bees euh, boo xam ne nii ay laaj la ak tont tontu laaj yi nga xam ne ni ñoo fi ñu fas yéene dalal sëñ Moustapha Ndiaye mi nga xamee ni mooy def émission taarixul islam mu fas yéene tontu laaj yi nga xamee ni ñoo fi jaar Serigne Moustapha Ndiaye bu fekkee pare nga rek bu ko defee ñu commencé laaj bi nga xamee ni moom moo njëkk a rot fii ci groupe bi bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي أبي القاسم wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu nuyu bi gën a tedd di leen ndokkeel bu baax ci weeru koor wu mag wi ñu nekk di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu te def ko muy koor gu mu nangu ca mbaxam gu rëy ci barke alquranu karim bi ko yàlla bi yàlla wàcc woon ci shahr ramadan al di nuyu jullit ñëpp leen ndokkeel di nuyu mbooleem kilifa yi na ci daara yëpp ñu ngi leen nuyu di leen wàcce seen wàccuwaay mu mel ni ni ko mbokk yi sàkko woon te ñu bëgg daal ñuy faral di ànd ak eh, daara ji ci diirub weeru koor yi incha allah ci ab jataay boo xam ñu ngi ko tuddee as-su'al wal jawaab muy muy jataay boo xam dafa jëm ci wàllu laaj ak eh, tontu ñu ciy faral di seq suñu mbokk sëriñ Xaadim Fay su ko defee incha allahu taala danañ jéem a ñëw kem suñu kàttan lañ xam ci laaj yi bu fekkee laaj yu yuñ ma tontu la ci saase saase ñu daal di koy tontu bu fekkee nag laaj la yoo xam ne xëy na eh, day jar demaat ci téere yeeg gëstu jiwaat ñu dogal ngant mbokk yi delluwaat xam na xëy na bala ñu dugg ñu fàttale ni ñun defuñu defuñu dafa am ñaar yoo xam mën na xàmmee muy la tuddee al al fatwa ak li ñuy tuddee al xukmu xam nga fatwa moom mooy bayaanu xukmin charayin aw bayaanu masalatin charayin mooy daal leeral ab atte bu ñu atte woon ci lu am ba pare borom xam-xam yi atte woon ca ñu gëstu ji la ci borom xam-xam atte woon leeral ko mooy fatwa xukm nag mooy inchaau xukmin charayin loo xam ne dañ ko sos muy atte boo xam ne ci lislaam loolu moom yonent bi alayhi salaatu salaam moom moo ko jago moo tax ñun fatwa mooy dem ci li borom xam-xam yi bind lañ at ca àtte yi xew-xew yi xewoon àtte yi ci lañ ca wax jële ko ci alquran ak sunna na la ñuy faral di leeral rek muy fatwa xam naa incha allah kon ci lañ fas yéene ànd ak yéen lépp lu ci jub ñu ngi koy sant yàlla lu ci dëng ñu xam nag lañ ci dugal rek mooy bëgg lu baax ak bëgg a jëriñ mbokk jullit ñi wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon sëriñ Moustapha ginnaaw ba ñu la dalalee ci leeral yooyu ak nuyoo bu sell boobu te ñaan yàlla nungu ñaan yépp mbokk mi day laaj ne ñi nga xamee ni du ñuy ay jullit dafa gis ni dañuy jëf ju baax maanaam di dimbalee eh, mu ni di laaj nag seen dimbal yooyu ñuy def te ñoom nekk ñuy jullit ndax loolu ëllëg sunu borom subhanahu wa taala dana leen ko fay ñu tàbbal leen àjjana am déet waa kay jërëjëf sëñ Xaadim ci laaj bi waa xam nga nag eh, bu dee ci wàllu lislaam moom eh, yàlla dafa nekk buur bu màndu du tooñ benn jaam du tooñ benn bakkan ni ko waxee ci alquran moom te mooy ni aud billahi min alcheitan arrajim wa ma rabbuka bi dallamin lil abid borom bi subhanahu wa taala daal doonal koy tooñ jaam ñi ci di wàññi seeni yiw wala mu leen di jox bàkkaar yoo xam ni defuñu ko woon kon ki nga xamante ne bi nekkul ab jullit xëy na mën na nekk koo xam ni ab euh, masihi la te mooy ab chrétien koo xam ne diine jam nekk bokkut ak diine l'islam wala xëy mu nekk ab ab ab ab yahudi muy boo xam ne moom tam diine jëm nekk bokkut ak diine wala koo xam ne sax dafa far amul diine ku mën a doon ñett ñi ma la wax nag moo moo xam mu nekk ab ab ab chrétien wala mu nekk ab juif yahut wala mu nekk yéefar tout court li l'islam di saxal mooy dafa am xadis bu yonent bi alayhi salatu salaam waxoon te imam Bukhari daf ko indi naka noonu te imam muslim yonent bi alayhi salatu salaam waxoon ni la yadkhulul jannata illa mu'min mu ni daal àjjana moom ku gëm yàlla ngëm yàlla gu dëgër rek moo fay dugg bu ëllëgee kon la nga dégg mooy ki nga xamante nekkul ci lislaam ndax tam demee ci ku mel ni ibnu kasir dafay wax ci téeréem di wax ni yahud yi nga xamante ni bi ñoo jàppoon ca euh, tawrat bu yonte yàlla Muusa alayhi salaam jàppoon ci di roy yonte yàlla Muusa alayhi salaam lu jiitu yonte yàlla Isa di ñëw lañ nekkoon diine la ku ca gëmoon yàlla ngëm yàlla ga dëppoo ga yonte yàlla Musaa jàngale ëllëg lu jul ñu nga ko am waaye nag ñi nga xamante ginnaaw yonte yàlla euh, Musaa bi yàlla yónni yonte yàlla Isa xam nga léegi yonte yàlla Musaa kon léegi diine moom fa la yem maanaam folleeku na kon léegi diine ja valable jamono jooju mooy euh, diinul masixiya te mooy diine yonte yàlla Isa alayhi salaam mooy itam ginnaaw bi yàlla yónni yonente bi alayhi salaatu salaam itam jamono ji ñuy waxee nii képp koo xam nekkoo ci lislaam diine ja nga nekk li lislaam saxal mooy yàlla jëppee ko diine xam nga lu tax inna diina inda allahi al diine ji yàlla jàpp diine fa moom yàlla moo di lislaam kon lislaam moo compte ci jëf kon ki nga xamante ne bi moo nekkoon ci diine yonte yàlla isa di ci jaamoo yàlla jàpp ca injil ak ca la yonte yàlla isa nekkoon jamono ba yonent yàlla Iisaa dund ba nim faatu ba ni yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwee ku ca nekkoon rek sa ngëm yàlla ga baaxoon na say jëf baaxoon na waaye nag ginnaaw bi yonent bi ñëwee nag yonent yàlla Iisaa léegi moom tam diineem fa lay yam léegi du valable ci lislaam jàngale kon fi mu toll ni may wax ak yow nii diine ji valable fa yàlla nga xam ne ci la yàllay fay bu ëllëgee mooy lislaam moo tax yonent bi waxoon ni ku nekkul jullit gëmoo yàlla ngëm yàlla gu wér gu dëppoon rek lislaam ëllëg doo dugg àjjana teewul nag ki jëf-jëf ju baax ku mën a doon moom bu fekkee nekkul ab jullit yàlla daf koy fay fii ci àddina da koy fay fii ci àddina ndax yàlla inna laaha laa yudii'u ajra man ahsana amala lañ jàng ci alquran yàlla moom du sànq jëf yi ku jëf kon ku jëf ci àddina te nekkul ci lislaam ku mën a doon rek comme jëf ju baax la yàlla dana ko fay fii ci àddina waaye àjjana nag moom ci la yonent sans njàngale ku gëm yàlla rek nekkoon ci lislaam bu ëllëg moo fay dugg incha allah wala lañ jàppoon ci laaj ci laaj boobu wallahu taala alam xaq bi xaqiqatil Sëriñ Moustapha tontu bi leer na kon dañ ci dégg ne ki nga xamee ne gëmut yàlla gëmut yonent bi nekkut ci diiney lislaam bépp jëf boo xam ne jëf na ko sunu boroom subhaanahu wa taala da koy fay fii ci addina waaye ëllëg yowmal xiyaam da ko fa fay jërëjëf kii nag dafay laaj ne moom dafa nekk bitim réew nee na bañ kóoragut da daan def bu ajjuma jotee mu jaar ci bitik bi jënd ay jumtukaayu ndékki waagee jox ko fi ñuy liggéeyee ñu nekk julit ñu nekkul jullit ñëpp bu weeru koor ñëwee nag julit ñi dañuy woor ndax nag sañ naa jënd lam daan jënd bu ñëwee jox ko ñi nga xamee ne nekkuñu ay jullit ndax mën na koo jënd ba léegi bu ñëwee jox ko ñu nekkutu jullit mu mel ni saaru sarax rek ci ñoom par ajjuma la ko daan def. waa kay euh, jërëjëf sëñ Xaadim ci laaj bi <clears throat> waa xam nga kooku itam comme moom da def lu baax lu jiitu Ramadan di ñëw teewul nag danañ bëgg nag mu continuer ko xam nga lu tax. yonent bi alayhi salatu wassalam jangal ni sarax bi gën ci sarax yi moy sarax bu sarax ci ramadan te kon moom dafa japp won sarax rek ki xamanteni bi nekul euh, julit mom xam go l'islam sa sant ko mu wor kon tamam day sarax rek man ko sarax lol du ci yak dara xala rek ñu bëgg ci ñom rek ñom ñi nga xam ne ñoo nekkul ay jul bu ñuy lek ga ñu dal sutural ko dal baña lek ci kanam julit ñi dal lañ ci mëna ton ci laj bi inshallah allah dana mëna continuer di leen jox sarax ba ndax it loolu bu yàlla moo tax ma koy def day ta ak fayam day gën a bari ndax ñëpp xam nañ li nga jëf ci ramadan te yàlla tax bokkut ak loo jëf ci lu dul ramadan ndax fu fay ga day gën a fulu fii ci ramadan incha allahu taala wallahu taala alam bi xaqiqati jërëjëf suñ tontu bi am na solo kii nee na dafa moom dafay laaj ne dafa nekk benn bërëb bu muy liggéeyee nee na nag ay jullitang fa ñu dut ay jullitit ñi ngi fi te nee na yonent bi dani mirut ay julit bu leen leen njëkk a nuyu nee na nag leen nuyoo na ngeen leen ko delloo waaye bu leen leen njëkk a nuyu nee nag moom bu xëysee da leen di fekk nag ñu toog nee na dana nuyu jullit ñi waaye bu agsee ci ñoom ndax sañ na leen a nuyu sañ na leen a wax asalaamaaleykum wala ndax sañ na leen a njëkk a nuyu loolu da koy laaj ndax dafa gis ne yonent bi nee na bu leen leen di njëkk a nuyu te moom bërëb bi muy liggéeyee ay jullit a ngi fi ñu dut ay jullit ñu ngi fi bu ñëwee ndax sañ na leen a nuyu ñooñu nga xam ni bokkuñu ak ñoom diine sañ na leen a njëkk a nuyu. waa kay jërëjëf sëñ Xaadim ci laaj bi euh, fekk dégg naa lu baax li nga wax mooy koo xam ni dafay liggéey ci barab te di fa liggéey ñoo xam ni bokkuñu bokkuñu moom diine ndax dana leen mën a njëkk a nuyu déedéet déedéet du leen mën a njëkka a nuyu ndax xam nga li ñu yonente bi alayhi salaatu salaam jàngaloon te jàngaloon ko saxaaba yi tey valable ci ñëpp mooy dafa waxoon juif yi bu leen leen di njëkk nuyu teewul nag bu ñu leen nuyoo na ngeen leen fay ca nañ leen nuyoo xam ñoom dañ laa wax bu njëkk ni assalaamu aleyk saa ma xam mooy mooy boo ko bokkut ak assalaamu muy firi jàmm muy nag bu leen waxatee assaamu nañ leen ko delloo kon nag la ci jullit di dégg mooy ki nga xamante ne bi nekkul bokk moom diine mën nga ko nuyu mais du ko nuyu nag asalaamaaleykum da dangay xool rek nuyoo ba eh, xew ca société ba nga nekk wala dëkk booba nañuy nuyoo nga nuyoo leen ko masalan lu mel ne Sénégal fii tey ñoom gaa yi bari ñu naan bonjour wala ñu ne ça wala ci loo ne nuyu yooyu mën ko nuyoo koo xamante ne bii nekkul ab jullit wante nag wante nag doo ko mën a nuyoo nag asalaamaaleykum nga xamante ne moom nuyu bu lislaam doo ko mën a di wax koo xamante ne bii nekkul ab jullit kon dañu bàyyi xel ne koo xamante nekkul jullit amoo sañ-sañu njëkk koo nuyu te mooy di ko nuyoo asalaamaaleykum wa rahmatullah comme bi ñu xam ni déedéet waaye teewul na mën koo nuyoo nuyoo boo xamante ne bii nag mooy ba xew ca réew mag dëkk ba ndax nuyoo dafay jur jàmm day tax soppane gën a am ci biir jaam ñi te loolu tamit sàmm bañu ko incha allahu taala wallahu taala ahlam bi xaqiqatil Moustapha tontu bi am na solo kon kurut ab juli daal ab juli suñu koo njëkk a wax asalaamaaleykum wa rahmatullah kii moom nee na dafay laaj nee na moom dafa am ngant ci weeru koor bi soxnaam it am na ngant ci weeru koor bi nee na ndax ñoom ñaar sañ nañoo jotee ci bëccëgu weeru koor bi kam ka ñoom ñaar ñëpp am nañ ngant waa kay jërëjëf sëriñ xaadim ci laaj bi waa xam nga lislaam dina la joxam dafa am muruna dafa am souplesse dafa mën a ànd ak jamono jëpp mën a ànd ak tam nit ñëpp moo tax mu ubbi buntum ngant xam nga ngant yi lislaam daf nangu bu baax a baax moo tax ki nga xamante ne bi am na ngantu lislaam nangu ba tax mu sañe bañ a woor bu fekkee daf ci tase ak soxna moom tam am ngant loo xam ne tax na mu sañ a bañ a woor nga xam ñoom ñaar kenn wóoru ci am nañu sañ-sañu seq lañ war a seq te mooy sëy bu yàlla dogalee ne ku ci nekk ñoom ñaar nag ngantale dañ su boobaa moom bis boobu da koy da nga bind fenn xam ne daa am nga ci bor boo xam ne da nga koo war a fay bu koor gi jàllee incha allah nga fay ko waaye comme am nga loo xam ne tax na sañoo woor ci lislaam léegi nag ni nga sañee lekk ak sañ koo naan mën ngaa sañe nag ànd ak sa soxna wala sa borom kër ndax loolu itam dafa nekk soxla comme ni lekk naan nekk soxla moo tax alam bi xaqiqatin Moustapha jërëjëf sëriñ Moustapha tontu bi am na solo euh, kii nag moom nee na dafa jote ak soxnaam ci guddi guddi weeru koor la nee na nag dañoo biddanti ñu yeewu biddanti sënguwuñ nee na ñoom lan mooy seen àtte ndax mën nañoo continuer seen koor wala bis boobu daal dañu continuer di lekk ka naan daal ba ëllëgaat jërëjëf waa kay jërëjëf sëñ Xaadim ci laaj bi ki nga xamante ne dafa Anda ak soxnam ca guddiga wala mu ànd ak borom kërëm ca guddiga ga dogal ñu war na sangu ñu bidenti ba naaje yow nga xam sanguwuñ bu fekkee yéen won nañ rek démb yéen woor fekk yéen won nañ teewu senko da fay bax insha allah moy xana rek bala ñoo julli da suba ñu sangu sangu ta moy sangu set bala ñoo julli waaye lolu yaqul ci koor gi xam nga lu tax mooy ka yàlla yónnoon mu yónente bi alayhi salaatu salaam mi roy kaay julli ñëpp daf ko daan dal te loolu euh, sunu yaay umu salamat daf ko nettali wax ni yónente bi alayhi salaatu salaam lii ñu wax lii nga wax daana ko dal nga xam ne daa fanaanoo euh, du amee janaba teewul nag dafay bu xëy dafay woor kooku dafay wér kon fa ngay déggee ne comme dal jullit ñi itam teewul boo yeewoo rek bu fekkee da yéene woon démb pour koor baax na xanaa kay boo bëggee julli suba da ngay sangu set door julli waaye koor gi incha allahu dana baax dara du ci sikk wallahu taala aalamu bi xaqiqatil Moustapha tontu bi am na solo lool kii nee na dafa woor waaye dafa jël lu mel ni aw xeer wala bul wala lu demee noonu daal loo xam ne nekkul aw ñam daal koy seex far ko wan na ndax nee na ndax dana yàq kooram wala du yàq kooram waa kay euh, jërëjëf waaw xam nga bu dee koor moom ci lislaam rawat nag ci madhabul maliki xam nga dañuy wax ni liy yàqu koor eh, dafay nekk eh, ma ian te mooy loo xam ne liquide la ndox te jaare ci manafis bi mu jaare ci bakkan wala mu jaare ci gémmiñ wala mu jaare ci nopp wala mu jaare ci bët ba nga yëg ko ci sa boli wala mu àgg ci sa ak mbàq loolu mooy yàq koor waaye loo xam ne dafa nekk jaamit loo xam ne xëy na xeeraw la bul bu fekkee jaarewul fii ñu la wax te loolu sax mënta nekk bul mënta jaare ci nopp mënta jaare ci bakkan mënta jaare ci bët xëy na kon ci euh, bëli la mën a jaar waaye nag bu jaare ci bëli nag ba àgg ca mbàq ga dugg na te lañuy bañ ci koor mooy lu dugg lu dugg la bañ ba bañ lu génn waaye lu dugg mooy yàqu koor kon daal fekkee dafa jaare ci fu bokkut ak euh, gémmiñ gi incha allahu taala te nekkul euh, euh, ma a nekkul likkit nekkul ndox jaamit la tey baaxu baaxute ragal nit su boobaa itam incha allahu taala lu yàq dara ca koor ga incha allah wallahu taala alamu bi xaqiqatil sëriñ Moustapha tontu bi leer na kii nag nee na moom lu muy laaj mooy dañ ni jullit ñi bu ñu wooree eh, dañuy gis ne ñoom chrétiens yi dañuy daw léeg-léeg di lekk seen kanam maanaam duñ bëgg di lekk ci kanamu jullit ñi léegi ndax jullit bi ñoom chrétiens yi bu ñu wooree moom jullit bi nag am na sañ-sañu lekk ci seen kanam. waa kay xam nga dafa am loo xam ni nag duggul ci kaadaru diine wante dafay dugg ci kaadaru jëflante ci àddina te nag jëflante ci àddina bu rafet lislaam daf ko digal julli ñi moo tax comme niñ ni ko niñ ko defee ñoom ci weeru kooru julli ñi nan tam la doon la doon baaxee nag julli ñi itam di ko defee ci ñoom seen seen seen seen waxtu yoo xam duñ ci lekk ngir mën leen delloo boor bi mën a fay leen loolu tam ko mën def tam wàññiwul dara ko mën def tam incha allah dana baax ma nga ci am sax tuyaaba ndax ak rafetal la bu soobee yàlla wallahu taala aalamu bi xaqiqati tontu bi am na solo xam naa mbokk bi delloowaat na laaj bi ci kaw ni ko tontoo nee na ndax euh, maanaam tey buñ leen joxe àq jooja bañ a lekk seen kanam nee na est ce que nekkul ne dafa mel ni kon dañoo nangu ne ñoom seen koor googu yàlla da koy nangu te dafa gis ni alxuraan dafa wax ne wa man yabtaxi xayral a diina falan yuqbala minhu wa hum fi laaxirati min alxaasiriin léegi nee nag boo lekkul seen kanam mel ni lu leen di jox worma jooja nee dafay mel kon day mel ne ñun dañoo nungu seen diine jooju ne nu di diine la loolu la ton loolu la indiwaat ci kaw sa tontu boobu loo koy leeral ci loolu. waa kay euh, jërëjëf mbokk bi tam loolu am na solo <clears throat> loolu day wane ne rek euh, lépp yàllaa ko xam ñun xamuñu lépp. waaye xam nga tamit li ma ko yokkaat mooy moo tax ma wax ci may tont ni duggul ci cadre diine loolu dafa tax may junj nga ci jëflante bu jëm ci àddina bu rafetal la waaye dugg ci ñun dañoo nangu seen diine wala dañoo jàppale ñu dañoo jàppale la ñu nekk muy diine déedéet waaye ci cadre doomu aadama gi respecté sa morom comme ñoom dañ ko gëm dañ ko gëm ñoom ñun gëm ñu ko ñoom ñoo ko gëm léegi nag respecté respecté leen loola ñu gëm doonte ñun gëmuñu ko itam loolu dafa dafa am solo daal dafa mën a dafa mën a indi lu bare bari ci ak euh, juboo juboo ci wàllu dëkkin dafa mën a indi lu bare bari ci juboo ci wàllu fu ñu liggéey côté boobu laa ko waxee waaye pas côté dañuy dañuy nangu dañ nekk dina la déedéet xam wax naa ko ci njëlbeen ni inna diina indallahi al islaam loolu leer nañ ko ñun jàppuñ lañ nekk ñu diina li déen ñun gëmuñu loolu waaye na comme ay dëkkandoo lañ ñu bokk ñoom réew mi wala fu ñuy liggéeyee maslaa ñoom tam du wàññi dara lislaam di ko bañ incha allah wallahu taala alam bi xaqiqa Moustapha tontu bi am na solo mbokk mi nee na li muy laaj mooy dañ ne buñ too weer wi weeru koor wala weeru korite maanaam na ko ñaar ñu maandu gis mu lan mooy maandu maandu googu la bëgg nga waxal ko lan mooy lan mooy maandu buñ ne ñaar ñu maandu lan mooy maandu gi maandu gi ci lan la lan mooy maandu gi waa kay jërëjëf mbokk ci laaj bi waa xam nga nag euh, ni mu ko waxee ni ko laajee xam nga weeru koor moom mi ngi saxe ñi ngi koy tàmbalee ci euh, ñaar ñu maandu ni mu ko waxee ñu gis weer wi ñaar ñu maandu loolu mooy euh, jumhurul ulama ñi gën a bëri ci borom xam-xam loolu lañ saxal almalikiye ci lañ bokk ñoom dañoo gëm ni ñaar ñoo war a gis weer wi ñu soog a woor naka noonu itam zaydiya madhab la ñoom itam dañoo dañoo gëm ni ñaar ñu maan ñoo war a gis weer yi ñu soog a woor naka noonu itam shafaiya ñoom dañoo gëm ni ñaar ñu maan ñoo war a gis weer ñu soog a woor waaye nag du lii du rek du madhab yi am ci lislaam madhab yi am na al mazhab mazhab hanifa ñoom gëm nañ ni kenn ku maandu man naa saxal weeru koor xanaabila yi ahmad ibn hanbal ñoom tam mazhabam ñoom gëm nañ ni kenn ku maandu mën na saxal ñu woor léegi maandu gi ñii di wax nag borom xam-xam yëpp moo xam muy ñaar ñi moo xam muy kenn ki maandu gi mooy maanaam ki ki ñu dafa maandu dafay sàmmonte ak ay julleem maanaam nekkul kuy sàggane julli kuy sàmmonte ak julleem la nekkul tam kuy jëf bàkkaar yu mag yi bàkkaar yu mag yi matal mel ni jëw rambaaj lekk ba bàkkaar yu mag yi nekkul di ko jëf nekkul tam ku nóor ku sax di def bàkkaar yu ndaw yi nekkul ku sax di def bàkkaar yu ndaw yi kon ku ñetti day ci mën nañ jàppe commando ci chara ci alfiqul islami maanaam koo xam ne mi ngi sàmmoon jëkk ay julli juróomam di ko def ca waxtu ya mi ngi sàmmoon teg aw làmmiñam ci bañ di ci jëw ak rambaaj ak yàq der mi ngi sàmmanteek ay cëram ci bañ di sax guddee bëccëg ci di def bàkkaar yu ndaw yi kii lañ jàppee ku maandu ci koo xam ne moom lañ jël ab xabaaram ci kenn wala ci ñaar ci saxal saxal weeru weeru koor dugg ci mais nag bu dee génn ci moom ci weeru koor moo tax jeexal koor gi moom jumhur ñëpp ci dëppoo ci ne moom ñaar ñoo ko war a gis ñu soog a génn ci weeru koor wallahu taala alamu bi xaqi tontu bi am na solo te leer na kii nag dafay laaj nee na moom mi ngi bitim réew waaye nee na fa mu dëkk ak fa muy liggéeyee soree na lool nee na mat na cent kilomètres nee na ndax nag bu jógee fa mu dëkk ci Europe jëm fa muy liggéeyee day laaj ne ndax moom bu fa àggee waxtu julli bu ko fa fekkee barab ba muy liggéeyee mën naa wàññi ak dulleem ndax distance boobu nga xam ne fa mu dëkk ak fa muy liggéeyee ni mu soree nee na daanaka toll na ne ndar ak Dakar wala Touba ak Ndar sori na daal maanaam distance wàññi julli daal bu doon euh, Sénégal am na ko ndax bërëb ba muy liggéeye ak fa mu dëkk noonu mën na bu àggee fa muy liggéey waxtu julli bu ko fekkee mu wàññi ko. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam na daa mel nag damay euh, wàccee sama kàddu fii di fi jeexale jotaay bi incha allah dama am léegi ay gan ñëw fii tax mun nu ma fee nekk nag di bàyyi samay gan di. nekk ci laaj yeeg tontu incha allah xam naa ñu ngi jox mbokk yi dig da jëpp ko yàlla ko incha allah samedi bii di ñëwaat incha allah képp ku am laaj rek comme ni ko mbokk yi waxee nga jokkoo ak yooyu ci suuf fu tee buñ jotee laaj yi incha allah danañ ci def ay gëstu man cee tontu incha allah ñu ngi leen di jégalu eh, xañ na ci rëcc rëcc yeeg ñoom tey ci ay xat-xat la ci kon yàlla xam na ko waaye lépp lu ci jub ñu ngi koy sant yàlla lu ci dëng tam ñu ngi koy jégalu xam ne tam lu baax lañ jublu woon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu